xuloowuñu xeexuñu ñun jàmm la ñuy wër jàmm rek la ñuy wër mais lii xale yi si koñ xale yëpp a feebar xale yi ñoo sonn lii balaa ngaa xam nga ñëw dugg ci koñ bi lu jëlee ba wàcc bi dug orange ndox mi ci koñ yi lay jaar taafa nag ku dem douche génn rek da nga fay gis ñu fa demee douche bàyyi ko gis nii ci mbedd dafa ñaaw waaw autorité yi nañu ñëw dimbali ñu parti pouvoir bi boobu léegi ñoo ngi defar ba pare ñuy fat ñuy defar BRT ba pare dugg génnee ci koñ bi loolu mënul nekk dañu dimbali te yàlla tax ñun bëgguñu ëtt yi jaamoo yàlla yëpp dañuy yàq ah loolu du yoon tamit dañ koy war a wax waaye te yàlla rek tax dimbali leen ñu mais xanaa maire bi nekkul fi la dëkk waaye maire bi lii gis nga ko maire bi gis nañ lii da ngaa ñu yëpp dimbali maire bi lii mënu ko liggéey lii état bi koy liggéey maire bi ko mënoon liggéey da ngay liggéey bu yàgg ñun loolu la ñuy xalaat ndaxte maire bi ñun war nañ ko ko wanaat ko ko ñoo jàpp ne ko mënoon liggéey liggéey na ko bu yàgg dañoo sonn nag mel ni amuñu maire loolu nañ ko moom suñu maire bi yéenewuñu dara maire boo xamante ni xoolal day fit waaye lii ñun yàgg na ci ba ñu la ñu dëkk mais xoolal ñoom ñoo ñëw ko waral donc bu créé réseau central yi nelawtuñ suñu ñu defar suñu maire bi man mii di wax ak yow maa ñëw ba si koñ bi jël sama engagement doon responsable koñ bi ñëw ba foofu adjoint au maire waxtaan ak moom ñu joma benn papier naan ma lii ngay woo ONAS ñu woo ONAS amul ndox amul dara ba passé dañ jël ndox bi dem sotti ko si këram mu andi ay problème mais bii defuñu loolu lañ jug pour marché pour ñu jàppale ñu moo gën xaalis bi ñuy duggal si Grand Yoff bi di ko def si yenn yi ñu jël xaalis boobu def ko si gox yi du fii kase de soo wëree Grand Yoff bi yëpp ndoxu day bi gis xoolal xale bi jigéen bële bu muy defee bu gis ne kenn amul fu mu jàll munoo julli jàpp ba pare dem bay julli nga dëgg si ndox bi nan ngay julli amatoo doo doo am jàpp yàq na lépp benn xale amatul doo xam ne ah di nga nooy oxy oxygène de vie bu normal doo ko am ndax lii parce que lii su la jàppee soo put bi lay jàpp damay yow enzyme nga am fekk amoo enzyme ndox bee la téye. léegi situation bi yéen a ko dugg depuis kañ. bii ñu ngi koy dund am na benn ndox boo xam ne fële lay jóge di ñëw boobu dund nañ presque 6 mois. chaque jour ñu ngi siy kaas chaque jour ñu ngi siy kaas di ñu benn autorité yoo xam ne Grand Yoff ah bu ñu mun a jàppale chaque jour ñuy wax chaque jour ñun ministre de la jeunesse suñu munee jàppale mu ñëw taxawuñu moo gën ñun suñu maire bi fan teguñu ko comme maire suñu maire yi ñoo ko fi fal mais du meer yi kase ñoo nekk si gox bi jeunes yee fi nekk mais maire yee ko fi fal parce que maire yi ñoo ñu tooñ parce que soo doo gis jaaykatu ndox ngay ñëw di ko teg muy doon maire ndox bi di ko déranger parce que lu muy jël lu ndoxam di jaree rek lay wër waaw tamit. léegi ban message ngay jàllale. lu may jàllale mooy autorité yi ah nit ñu ñëw jà jàppale fii suñu jàppalee mooy leaderu Grand Yoff fii ñoo gën a ñàkk fay rek kenn du jug xeexal goxam man looloo ma gën a métti du ñu jug xeexal seen gox parce que am lu tax ñii ñu ngi tëdd fële ñii di naaw fële loolu amul benn sens dañu war a jug. ñëpp suñu xasee ba jug maire ak paa yi jug tey jii taxaw si tali bi ñëpp si war a jàpp jug jàppale ñu ñu xam ne lii xam nga ne lii mënoo xaa nooy soo koy nooyee 10 minutes soo dof doflee sax da ngay xam fii ngay tëdd sapeur lay jël si lii baaxul si ay poumon saxantuma si biir te biir moo yor góor dañuy waxante dëgg